Salut les amis de Sport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de vous des merci de vous des merci également du bail et des Un plaisir renouvelé chaque fois de partager gain information yi mbokki Sénégal yi fépp foo leen mënti du Sénégal àdduna warngal këpp ñu ngi leen di jaajëfal ñu la l'hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom i njaboot ñi dëddu àdduna avance ensemble dans la magie de Sport TV l'actualité kaay actualité bi ñu fas waxtaanee ki xam ne donc mooy Ismaïla Spilissar bi nga xam ne donc gars yi mooy donc dépassé Kylian Mbappé en matière de vitesse wax aussi Sadio Mané objectif euh, mois de février loolu yëpp nañ ci indi ay leeral mais laata boobu dañ koy tàmbalee nag yéene kaay ndorte gi nag jëm ci yéene bi di sunu lamb wax ne euh, juróom-ñaari promoteur ñi a nga xam ne donc mooy euh, Boy Niang déposé na li nga xam ne nag mooy donc lii résultat visite nag Birame Gningue moom nee na on est prêt ko mais Modou Lo prêt son game moom na déposé na certificat de guérison bi nga xam ne moom lañ ko daal jox pour mu daal di wane ne fi mu ne mën na daal di tàmbalewaat dugaat ci arène bi roi des arènes nga xam ne kay at a ngi nii gannaaw ba mu ko jëlee ba léegi ca kaw kii di Eumeu Sène kenn gisu ko yéen kay bi nag di Marca ñoo ni Mamamia quel partido parti parti boo xam ne am diggante kii di Ancelotti ak Gennaro Gattuso ñaar ñoo xam ne kenn ki yoroon na kenn comme joueur mais seen diggante rataxul lool moo tax ñu ne match bi dina neex tey diggante Real la retraite keneen ki nga xam ne nag

waxtaanee def benn parenthèse wax ci wàllum NBA Joel Embiid 36 points 11 rebonds la daal di def le joueur de Philadelphie ñoom ñoo daal di euh, di nga dóor démb donc waa Détroit 147 à 116 kii di Joel Embiid encore toujours intenable mais ki nga xam ne nag moom mooy donc Kawhi Leonard du côté des Clippers nga xam ne mooy donc ci guddi gi ah donc moom Kawhi Leonard am 33 33 points 9 rebonds ak également ah des statistiques exceptionnelles

bi xam ne nag moo amoon du côté donc euh, de la drogue ah nee patron de la drogue bi ñoom ñaar dañoo bokkoon kaso ba kaso nag mu ko yow laay suivre jour mais aussi mu gis fa xam <laughs> mosu ko daal di gis ki nga mu ne nii nag négociation yi tàmbale na diggante Fiorentina ak Amrabat loolu daal la yi fësal Amrabat bi nga xam ne yéen dégg du monde mu ne style jaune kii di euh, Simeone moom la jël di ko euh, jouer kii di Matistel également ah, première partie bu saison bi pàcc bi njëkk li mu doy na xelam moo tax deuxième partie bi dina ko gën jox temps de jeu mais que dire également de Marcus course Rashford gars yi six matchs sept pour l'anglais Rashford sincèrement ba tànn ak ñooy ba léegi dafa ñëwaat ñëpp dañoo gisoon Rashford bi doon gis ba muy soog ndoor jóge ci centre formation bu Manchester United actuellement daal il est au top de sa forme le numéro deux dix mancunien

nag waa Chelsea ñu ngi commencé xalaat ndax duñ ko daal di coppi ñeen nag bu fekkee ne supporters ñoom dañuy wax naan kii di euh, lañ bëgg mu ñëw ñeen naan kii nga xam ne nag mooy donc euh, xam ngeen ko Loco lañ bëgg mu ñëw euh, kii di daal la gars yi gis ne bokk ci Ismaïla Spidi Sarr Ismaïla Spidi Sarr c'est li nga xam mooy classement euh, joueurs yi gën gaaw ci coupe du monde bi Ismaïla Sarr nag moo nekk ci juróom-ñaareelu place bi muy septième position bi ndax dañ ko flashé à trente cinq virgule quatre kilomètres heure trente cinq virgule quatre kilomètres heure moom moo raw sax ki nga xam ne mooy donc Kylian bi gars yi ne dafa gaaw donc coupe du monde bi Kylian Mbappé donc kii di Ismaïla Spili Sarr moom moo ko raw Achraf Hakimi sax moo raw Kylian Mbappé classement bi di ko gis kii di ghanéen bi di Souleymana moo nekk Hakimi Mbappé moo nekk donc ak Hakimi ñoo tolloo donc huitième position la ñu daal di nekk Souleymana nag mooy booy pépite bi ngeen gis du des Black Stars du Ghana booy bi moo nekk le joueur le plus rapide de la coupe du monde. kii nag di Ismaïla Spiri Sarr ñoo nekk ci juróom-ñaareelu place bi di wane aujourd'hui en matière de vitesse donc le Sénégalais rivalise avec les plus euh, grands gars yi loolu aussi da ci am solo ñu koy leeral. le Kaiser Magnifique Mané l'enfant de Bambali Gaïa donc le ballon d'or africain donc Sadio Mané dellu si na Sadio Mané nag objectif am actuellement mooy fexe ba lii di Ligue des Champions bi ndorteel gi mu daal di koy fekkee revenir au top de sa forme wane ne Sadio est là le Diato est ba tax nag yéen a ngi di stade l'objectif de Sadio Kaiser Magnifique Mané aujourd'hui mooy fexe ba daal di wér et que aujourd'hui Bayern de teg na lépp loo xam ne rek mooy jumtukaay ak matuwaay pour mu fexe ba seen star daal di gaaw a ñëw parce que ñoom li ñu bëgg rek mooy jàll France face au Paris Saint-Germain bi nga xam ne équipe bu mag a la teg yéen kay bi ne Sadio un espoir de retour face au PSG première course après euh, avec poids réduit donc gis ngeen ah,

Jeff.